ñaari nen yi ak pain bi 500 la. ak frite la wala dërëm la <laughs> am. Hmm? waaw. ak marché bi. marché bi marché baa ngi ma ñëw xaaral ma xool. ak prix. Hmm? waaw gis nga. Chile. <laughs> Emily. Emily, vai rồi. Bi du libet. Xoolil gì mà de terre bi. Assane day am pomme de terre yow frite nga wax. ndaw e e eh? laa ah? ah, la baa ngi nii. mburu. tawla ñaari ma def si ñaari nen xam nga yow frite ah. coco ah. weccit xaaral ñoo ko. ketchup ak lan lii nga ak lan. jeex. bu dul lii ba. mayonnaise sox 250. ñaata la ñaata ñaata la yor. ma jaay la amu problème. defal na la bi am kii nen baax na defal nga. naa ko waaw. léegi ya yaa si des. damay def akara. man ban. ban. man bii ndax lan. Daba Samb 21 laa dëkk si koñ bi. man maa ngi sëy ak sama jëkkër sama njaboot xam nga di daan doole fii pour lu ma sama njaboot daal. moo tax ma toog fii kon naa am restauration mu daanu après ma daal di ne ma mujje fii ci ndekki bi encore su ma yeew damay sangu julli dugg si waañ bi daal di commencé togg 5 heures boobu su ma ci yeewoo dinaa profité togg balaa heure bi julli di jot su ma toggee balaa a julleendoo ji su ma paree rek damay defar sama bagage tombeeg samay xarit dama doomi tegal leen ñu daal di sangu ñu ñëpp ñu génneendoo kër yi sama kër kenn du fa nekk ñu ñëpp dañuy jàng sama doom yi ñu génn ñun ñëpp daal di ñëw man 7 heures dama fekk ma ñëw fii su ñëwee daal di commencé jaay jaay ba gis fi ne nii xam nga jeexalagu ma damay toog rek ba ay 2 euh, heures presque fi la na nit ñi dañuy dékki rek naa fi toog ba 2 heures ci lay soor a pare su ma wàccee nag ci lañ war a dekk day metti nag ma wàccee nag ma toggaat damay toggaat pour lu ñu lekk su ma toggal lu ñu lekk bu pare a toggaat sama defaraat sama njaay imagine da heure tam tey nga war a préparer pour suba njaay mi tey nga koy préparer pour suba da ngay xalaat ñebbe bi ak petit pois nga baxal ko ni nga koy def rek yëpp yow mënoo ko def ci 5 heures moom maa ngi si jaay bi xam nga maa ngi ciy sant yàlla bu baax xam nga tane na daal macha allah tane na moom mhm, tane na maa ngi ciy débrouillé di ci jéem a dimbali sama njaboot bi six yi ñu toog yi ñu toogoon métti woon na torop parce que boobu dama jaay moom woon dama arrêté woon sama jaay bi parce que boobu temps yi ñu doon wax jàkkub ndékki yi après man tam ñu ne ma naa arrêté ma arrêté bi ma arrêté métti woon na parce que boobu xam nga rek boo jëlee banque bëgg a fay des fois ngay def da ngay am collaborer ak banque yi di jàppale di pour nga liggéey di fay chaque jour boo wàccee ngay dem di verser fay mais après foofu la méttee woon heureusement banque bi ma dikki woon moom baax na ndax problème bi ma demee expliqué ko nee na may na ma 3 mois ma arrêté mais sinon ma toogee moom métti woon na trop. sama business bi bi may commencé ak risque laa commencé aw ma woon dara tuuti daal laa commencé rek commencé tuuti ba am commencé am bool yi. tuuti bool laa commencé commencé naa ndambe ay may mayonnaise laa commencé di dem muy metti nag léeg-léeg mu metti doo gañ a dara ndax xamoo jaay mi mais yaa ngi bëgg a jaay xamoo léeg da ngay dem nga gañ tuuti léeg-léeg doo gañe xam ak jaaykat yi des fois ñu dimbali la nga jugaat di dem noonu daal laa demee ba nii may da am ko nooy defee daal nooy doxalee dem na nooy doxalee doo am benn problème doo am benn problème c'est que booy gérer bëgg jë boo wàccee jënd daal walla nga jënd lii da ngay da daan mais dama takk sama biir takk lépp def pour rek samay besoin jaboot parce que dama leen di fayal ñii dañuy fay jàngi formation lay def ISAC lay ak ñeneen ak ñeneen jànge di la de la fosse ma jël risque yooyu léegi nag fi ne nii pour ma reposer dimanche sax day metti si man damay obligé may jaay toujours ndax ñi kuy jàngi sora di ko jox paas ma xëy dinaa leen jox paas ñu dem jàngi xam nga bëgg économiser lool far a fay fin de mois bi si loolu nag il faut nga mën a économiser bu baax do jënd dara do bëgg dara heureusement mais seen papa ngi fi ñu may dimbali benn côté bi xam nga seen doon yi lay ko mënatuñu lepp ñoo tax ñun ñu jóg tamit takku di liggéey pour rek dimbali suñu doom ñoo mën taxaw yaal ci bedd bi jigéen waru tok benn place jigéen foko fekk war na ñafé parce que mëno di yaakar toujours ci nit ki nga yaakar mom tam day liggéey day daan doole pour mu mëna ci ki kii defar ay faj soxlaam kon yow ba nga wara a liggéey pour faj sa soxla man dal man foofu la ko tek man la gis bu jigéen bu tok bëgguma ko jigéen da nga wara di yëngatu di liggéey man mosuma toog man depuis même avant may marié lu ne maa dugg ay tege dege lu ne dama ko doon jaay damay létt dama doon létt di fayeeku maa ngi ci ñaw bi lépp maa ngi ci mosuma toog man depuis ak ba nekk xale ba léegi mosuma toog liggéey rek xam bu ñu mënee nguur gi bu ñu jàppale jigéen ñi moom baax na trop wut leen jox leen ay poste ne war nañ fa ko gisuñu ngi jàppale ay aide sociale yëpp day am mais ñi koy jël ak ñi koy yelloo duñu benn bi déposé naa ci ba sonn mais mosuma ci am chance mosuma ci am chance buñ ko doon joxee di gëstuwaale yi ñu amul ñi ñu amul ñi bëri na fi torop di leen gëstuwaale moo tax su ko defee dëkk bi dina gën a neex daal restaurant moom bëgg naa ko moom bëgg naa jóge ci table bi am sama restaurant bu baax loolu laay rêvé puis euh, magasin boo xam ne damay jaay ay tissus affaire yooyu wala vaisselle man loolu laa bëgg su ma amul restaurant moom naa am magasin bu may jaay tissus ak moom moo a noppal mais sinon dinaa nekk ci lii di fortaatu ndax xam naa ne lii ko may ndax gis nga li la wax ci li ma ciy war a def xam loolu du ma ci ma léegi damay mujj a toog fii rek di de góorgóorlu def loolu rek ba xëy na xëy na sama doom yi màgg ndax des fois ñoom dañ naan ma yaay boo amoon un million la ma la ko may lan ngay def su ma nee damay bi restaurant ñun ma déedéet da ngay wut magasin nga toog da ngaa war a noppal